salaamaaleykum Sénégal di jégaluwaat bu wér wallaay ndeysaan pour ñi nga xam ne gars yi nag ñu ngi profité ci situation Sadio maane bi lu ne ñu ko fay jaarale di yàq sénégalais yi naan noonu lépp ak sénégalais yi ñoo topp saajo maane di ko mbamb Sadio maane jóge Liverpool jóge Liverpool ba jóge fa tey jii mu ngi nii nekk ci ay situation léegi sénégalais yi non bàyyi leen yooyu sénégalais yi teguñu ko benn coono sénégalais yi ñu ko coono gi mu nekkee nii du loolu. Sadio maane au contraire sénégalais sax dañ koo gën a may doole Sadio Mané coono yi mu nekkee nii lépp lenn moo ko teg mooy yaram bu ëpp waaw yar baax na trop mais yaram gu ëpp ndeysaan niñ ko yaree la ba yenn yoo xam ne nii sax du ci mën di réagir du ci mën di réactionné wu. tubaab bi parfois faaw nga xaw a métti ak ñoom boo indee yar da turo rek ñoom dañ naan kii dafa faible dañuy jaar sa kaw et tout. mais yaram gu ëpp rek moo ko yóbbee lii ndeysaan mu ngi noonee mais du sénégalais sénégalais da au contraire dañ ko doon may doole yow dinañ gis suñu mbokk sénégalais ndeysaan di souffrir ci dëkk tubaab ñu toog di ko seetaan nit ki da ngay dem fañ la bëggee ndeysaan mu ngi noonee Sadio Mané sunu international sénégalais jógeem Liverpool waroon la lu waroon la waaw no seulement moo bokkoon na ñi fa gën a bas salaire tam indil leen Premier League indil leen Ligue des Champions trophée yi ñu namoon yi Liverpool yooyu yëpp ak yu mësta woon jël indil leen ko ñu koy jox salaire boo xam ne ci défenseurs yi sax ko salaire ba pare yamaatu ci foofu di ko génnee heure bu ko neexee ta mais lii doon yoon mooy ko mu jógee foofu dem xooliwaat beneen étape nag amatul dara lu pour prouvé foofu léppam joxoon na ko foofu mu ñëwaat Bayern na Bayern na lam ko waxoon lam leen lam lam la bala Bayern na déggoon Sadio Mané defuñu ci leen non seulement Sadio blessé au lieu ñu taxaw ko soutenir ko noonu ñu koy bunnu xataal di ko boole ko gone gu réew goo xam ne ni ngeen baal ma ci kàddu gi di ko sosal façon kàddu gu ne mu teg ko ko avec saa Sadio ne ci coono yooyu yëpp gaay yi naan sénégalais ñoo ko teg non non mu ngi doog a xam ne ne sax yaram gu ëpp moo ko yóbbee lii nag keroog nam réagir rek kookee di journaliste bi ngay doog a xam ne Sadio mu rendre na compte que ni parfois yar bu ëpp si côté tubaab bi noo dalay pénaliser Sadio dafa calme de trop yaru de trop ba lu ñëw rek da koy encaisser bàyyi mu sedd yooyu nag football professionnel di nga war a yaru am nga discipline mais am nga niveau booy toll faaw nga am caractère boo xam ne nii mbindeef ci àdduna du la torturer. Kylian Mbappé dañ naan dafa arrogant dafa arrogant mais français yabuñu ko de Paris yabu ko de yu bëri sax da koy neexal Cristiano Ronaldo dañ naan dafa arrogant dafa arrogant mais benn club mosu ko yeb ci àdduna mu ngi noonu Lionel Messi dañ ne dafa yaru dafa yaru mais benn club mosu koo yeb bu jaree jaar ci digg bi day jaar ci digg bi naka noonu et d'autres joueurs mais suñu international sénégalais ndeysaan dafa mën a football mais yar gi dafa ëppoon de mais nag. bon chance à lui bon continuation dafay jóge Bayern loolu c'est clair et net dañ koy def lu dul ñaanal ko fu mu mënti nekk dañ fay ànd mais nañu bàyyi di profité situation bi naan sénégalais ñoo ko teg coono yi non non sénégalais au contraire ko gën a may doole Sadio Mané niveau bi mu toll nii sénégalais ñoo ko fa yóbbu waaw Sadio Mané bu amee doole am confiance di teg ay pas ba jël ay ballon d'or jël coupe d'Afrique yóbbu ñu fu ne senegal ñoo ko yóbbee niveau boobu noonu kon nag nañ bàyyi jël problème bi teg ko sénégalais non non destin am la dafa waroon jaar fii jaar na fa tubaab bi ci boppam boo àndeek yar de trop dañ lay dañuy jaar sa kaw ñoom seen intérêt rek la ñuy favoriser mu ngi blessé lijjantiwuñu ko lijjantiwuñu loolu lu bëgg débrasser wu ci moom rek te bañ ko soxlaay dëgg lu ne def nañ ko kon nag gars yi nanu bàyyi xel loolu bu baax a baax suñu international sénégalais croise à toi foo mënti nekk dañ fay ànd ak yow merci à vous jàmm ci yéen gars yi